taxaw takku tembe taxaw seetlu. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk internet du Sénégal TV amati nañu mbégte bu baax dal seen plateau bi ngeen xam ne saa su ne dañ fi dalal ñi nga xam ne ay ndaanaan lañu ci wàllu taxaw seetlu waaye nag taw taxaw seetlu dafa yàgg topp kenn koo xam ni di ko wër pour def moom plateau waaye suñu borom def na ni tey la koy doog antu ki nga xam ne moom mooy Serigne Codou Seye waaye nag balaa may yaatal bu baax damay jox ki nga xam ne mooy Souleymane ñi nga xam ne saa su ne ñoom ñooy ñooy waa seq plateau bi di waxtaan Souleymane euh, tey jox naa li nga mooy kàddu bi daal di may tijjee. Euh, jërëjëf sëñ Moussa ni nga ko waxee ñuy nuyu mbokk yi si baatu asalaamaaleykum. Mm-hmm. yow la wax ne tey dañu fi dalal mag a mag. Uh-huh. ñuy wax euh, Serigne Codou Seye. Mm-hmm. di borom xalima bi. macha allah mu ngi dëkk fële sa Mbour Diamaguène. ci Naawraay. Mm-hmm. dëkk si boori école bi ñuy wax. Uh-huh. académica. Uh-huh. numéro téléphone am di 77. 691 06 57. beneen bi di 77. 298 53 53. li ñu def lu dul Moussa bàyyi ko mu nuyoo. ñu doon ko si waxtaan wi. waaw su lay wax ji rafet na Serigne Codou Seye borom xalima gi ñu ngi lay dalal bu baax suñu plateau taxaw seetlu. bisimilah. Uh-huh. ñu ngi leen di wax waaleykum salaam wa rahmatulah. wa barakaatuhu. am mbégte ak contentement. nuyu ak ñi mhm. nga xam ne ñooy bàyyi xel. Mhm. comme ñu jàkkaarloo ñëpp. Mhm. di ñu di bàyyi xel jamono ju ne waxtu wane saa ne. di topp émission bi. xel ni ko ni nga ko waxee rek. comme euh, yàgg ngeen ñoo topp. ngir ñu am jotaay bi. waaye jot xawoon na ñàkk lool. dëgg la waaw comme ñun moom suñu jot bëriwul. dëgg la ndax ñu ngi ci liggéey bi comme ci tool yi ak ci daara yi. xëy na loolu rek moo ñu ci woon waaye moom fas yéene nañoo yaatal. ak ci li ngeen ñu bëgg laaj lépp rek. inshallah biirante ak ñëpp rek inchallah inchallah ndeysaan su ma koy wax eh, saa su ne ñoom bu ñu duggee rek da ngay xam ni seen lépp taalibe la ndax eh, wax ji day tey macha allah mais su lay eh, tey mu indi fi ay waxtaan bu am solo bu ñu fas yéene def ak moom hmm. ci wàllu bu muy yëngu hmm. wàllu bu muy yëngu nag nekk wàllu woo xam ni hmm. lu mu lu mu mën la lu mu gëm la mhm. am fu mu ko teg tamit mhm. waaye tamit lépp rek mu wéer ko tamit ci loxo suñu borom mhm. loolu laa bëggoon ñu xool nan lañ koy ko ci benn bu nekk mu daal bi siy tontu jërëjëf sëñ Moussa di leen fàttali koy njëkk laaj Moussa mooy wàllum istixaar wàllum istixaar wàllum istixaar lañ bëggoon sëriñ bi ñu si ay leeral waaw dafa mel ni aussi bëri na ay pàcc dafa bëri aussi waaw mu leeral ñu ban la ciy def sëriñ bi waaw ñu ngi am mbégte bu baax a baax. Mhm. di tontu ci laaj yooyu ngeen ñu laaj muy listixaar. Mhm. listixaar dafa doon lu am solo ci dundu doomu aadama. Mhm. ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daana ko def te digal na ay ñoñam ñu koy def. képp kuy jullit rek digal na la nga koy def. xëy na nag dinaa ci leeral profité comme ñi nga xam ne dañuy dem ci tënikat yi. dem toog leen di tey. yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci benn hadis ne. kaddabal munazzimuna wala sadaqu mu ne képp koo xam ni. Euh, ñi nga xam ni comme yor nañ seen i euh, mbir comme mm-hmm. thème yooyu la bëgg a wax mm-hmm. yor nañ ko di di wax mm-hmm. neen li ñuy wax donte dëgg la waaye jàppal ni dañuy dañuy dañuy kasab te dañuy ñuy wax waxul dëgg comme baat bi xëy na bu ñu ko tuddee noonu day xaw a ñàkk te dëgg waaye ngir leeral leen comme seet dafa doon lu lu wér lu lu am tamit. Mm-hmm. waaw comme noonu ma leen ko waxee listixaar yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan ko def digal na ay ñooñu ñu koy def. Mm-hmm. ñun nag noonu lañ koy defee ni ko yonent bi sallallahu te képp ku ñu jox sa tur ak sa tur waajur bu jigéen buñ la fanaanoo. Mm-hmm. buñ xëyee dinañ wax ci sa dund. li ngay dund ak li ci sa kanam lu leer naa nit nit loo xam ne danga nga ci teg bët. am na nag lu ñuy wax ramlu ramli am ñaa ko ramlu. moom itam façon seet la. ba tey itam danañ ko def. même bokk nañ ci tamit comme mm-hmm. seeti ba tey comme nit feebar mm-hmm. bëgg nga xam ba xam dina wér wala du wér mm-hmm. wala mu am aajo ba xam dina xam ba nga xam dina faju wala du faju loolu bu ñu wootee bu ñu jàkkaarloog yow boo ñu waxee sa tur ak sa tur yaay mën nañ laa wax kooku dina faju wala dina faatu loolu moom amuñ si sàkk ku ma woo ku ma la ko waxee wallahi barke alquranu karim mu la waxee dina faatu wala dina dund yow nga takk ko téere xam ne dina kii même tamit ba tey comme nit tawat dal ko moo xam feebar la bu mën di doon ma dalee tamit boo ñu jàkkaarloo boo ñu waxee turam tur yaayam mm-hmm. mën nañ laa wax feebar bi lii la lii moo ko sabab mm-hmm. ngelaw la wala seetaan wala deret la wala lu mën di doon dañ la wax feebar bi moo ko jàpp mm-hmm. mën nañ laa wax nag li koy faj nga dem ñu koy faj ñu fajal la ko sëñ bi nga baal ma doguma la mais sëñ bi li nga wax dafa yéeme trop parce que euh, xam nga nit bu waxee ba pare assuré boppam ni waat naa ko ci baatu laa ilaha illallah dëggal boppam kooku mooy wane ni maanaam la muy wax du ci dellu ginnaaw sëñ bi comme liñ yor xam-xam la. xam-xam mm-hmm. waaw comme li ma la wax sànq ne suñu borom moom. Mm-hmm. xam-xam ñaari façon moo ci am. Mm-hmm. nga jàngi ko maîtriser ko. wala suñu borom jagleel la ko. ñun nag lii lañ ko jàng bu wér-wér dem nañ fu ne ci réew yi dend yi. wuti ko xam-xam. moo tax li ñuy wax lambatu wuñ ko lu xam la. te ku ku ci ku ci jàkkaaloo ak ñun buñ la waxee nag mën ngaa demaat fu la neex. xam ni liñ la wax dëgg la wala du dëgg. waaye ku jëflanteel moom. di nga Mm-hmm. dina am satisfaction totale dina am mm-hmm. euh, li mu wax am na solo waaye baax na tamit nit mm-hmm. joxe benn affaire ni dama koy def waaye xuus te tamit euh, joxe ca leeral pour ki koy seetaan mën a gindeeku waaye nag comme li ñu wax rek euh, yàlla dafa def ni li ñu am ci ay waxtu bëriwul waaye daan ko daan tënk dëxiñ lépp ci biir daan ko faram fàccee su lay ñëwal ci deuxième question bi ñu xool waaw Moussa beneen bi ma koy laaj bu yitteel nit ñi la sax ñi suñu ñuy may seetaan parce uh-huh. que projet projet mais souvent dañuy bëgg defar seen ay projet ba pare te du dem. te du dem loolu laa ko bëggoon laaj ba xam ndax moom loolu da ciy da ciy ndax am na say pexe. waaw projet dafa doon lu am solo ci dundu doomu aadama. Mhm. comme li ma leen doo wax rek comme li réew moo gis li ko li ko li ko li koy développé dëgg-dëgg. Mhm. mooy jàng am xam-xam. Mhm. nangoo liggéey. nangoo liggéey comme li ma wax sénégalais yu bëree bëri ñoom seen wax ji moo bëri waaye liggéey gëmuñu ko dañuy wax rek ak di fexe naxaate. ba loolu moo tax bokk na ci xëy na li tax ngeen sàkku ñu ñëw teew fii. waaw tax ñu bëgg fee teew ndax comme li ñu yëngu ñun tam mhm. comme ñun dañ cee nekk waaye yënguñ ci comme wax naa la li ci liñ nekk di ci yëngu mhm. waaye lii dañ cee am lu wér wér di ci dimbali doomu eh, jaami yàlla yi mhm. ngir laay biirante ak ñoom ndax gis nañ ci ñu ci nekk di ci naxe liñ naa mbooloo moo gis am na asaka loolu rek moo tax ñun ñu nekk ci bëgg cee dimbalante comme ñi nga xam ne sonn nañ dem nañ fu ne ñu nax leen bi ñu a de ñooñ ñooñ tax jug ah. ku ñu dajeeg ñun wallaahi danañ la jàppale bu baax a baax comme euh, ki bu amee projet am bëgg a liggéey. Mhm. Euh, ma il faut mu am ay ñaan. ay taxaw il faut mu am ñaan da koy accompagner. waaw ak ñaan mënta ñàkk ci dundub doomu aadama. comme lu mel ni wàllum sampaax yooyu daal. déedéet pour mu taxaw wala. waaw samp nit danañ ko samp ba mu taxaw. Mhm. ba dootul mën a doomu aadama dootu ko mën a bu ko fexee lee tamit du mën ci moom lenn. Mhm. waaw comme li al al li yéen si laata doon di tey boo demee ci alquran suñu borom mi ngi wax ne moo moo wax ne adduuni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen mm-hmm. moo waxaat feneen tamit wa nanzilu min alquran maa huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin mm-hmm. ne moom moo wàcce alquran muy saafara ak yërmande ñeel jullit ji ko gëm mm-hmm. ba tax na képp koo xam ne daal am na jafe-jafe ak gàllankoor ci wàllu am defar mbiram ba mu yemb te mu bëgg ko ko financé bu ci jokkoo ñun danañ ko ci jàppale ba pour ñu jox turam danañ ko ci defar loo xam ne kooku dana yëkkati xaalis jox loolu maa leen ko Eh, li mu wax comme li may wax rek. Mhm. wax dafay leer. Mhm. que tamit nit ko teg ko ci bat mhm. parce que comme li ñuy wax rek euh, may fàttaliwaat aussi mbokk internet yi que ni. Euh, moom mi ngeen di gis euh, dafa bàyyi lépp pour ñëw. pour ñu pour ñu pour ñu liggéey. waaye tamit avant muy ñëw ñun topp nañ ci. pour jot ko waaye dafa am benn affaire bu am solo. mo nee na ma musa damay ñëw rek pour def benn 15 minutes rek. ak mbokk internet yi. waaye li ma bëgg dëgg-dëgg. mooy ngeen fekk ma fa nga xam ne mooy bërëb ba. di koy wax léegi ci waxtaan ñu naan. Euh, daf ci yëngu lii rek daf ci laal tuuti daf pour dimbali jaamu yàlla yi waaye am na leneen loo xam ne mi ngi dimbali ay doomu aadama yor alxuraan yor daara lépp ca mbuur waaye incha allahu rabi ci ay fan yu néew dañ fa dem wan leen la nga xam ne moom mooy daara bi ci kàttan suñu borom su lee ñu doxal waaw jërëjëf Moussa ñu koy jaajëfal ci yooyu la leeral mhm. beneen bi sëriñ bi dañuy dugg bi nga xamante ne dafa lëmba jamono la wax na Sénégal mhm. xale yu jigéen ñu bëri sëyatuñu mooy lan wàllum sëy wàllum sëy moom daal laa la bëggoon laaj ba xam ndax am nga si ay pexe ah, maanaam comme mariage maanaam war wàllu sëy mm-hmm. dafa doon loo xam ni sonal na jigéen ñi bëree bëri bëri mm-hmm. comme jigéen ñi comme li suñ président bi li mu doon wax ne bu ma xoloo jigéen dinaa leen utal ay ay jëkkër loolu yaakaar naa moo ko mm-hmm. xëy na jamono ji ñu toll li suñ sàmbay da koy wax ci waxtaan bi bëree bëri dañ dem ba toll foo xam ni dafa foofu lañ toll Mhm. nit ku ne mën naa am ñeenti soxna te mhm. jigéen ñi dañ fiy des lu bëree bëree lamb fi lool jamono ji nag comme li li ko li ko waral xëy na mooy jigéen ñi bëri nañ bëgg-bëgg mhm. bëgg bëri nañ bëgg-bëgg te jigéen góor ñi tamit moom leen du sonal xëy na duñ mën a euh, kii ci yow ngir jëflanteeg yow waaye daal képp koo xam ne li ko téye gàllankoor la wala tëju tëju wala def-def wala mu bëgg borom kër mu dëfa lool am nañ ci mbir yoo xam ne buñ la ko defalee juróom ñaari fan boo ko sangoo takk la ngay takk wallaahi balaa bis ba dellu si. da nga am borom kër. Ah, loolu moom. ndax naa ngi ne problème sëy sëy laa la wax non non ci télé gi mu ne sax a am problème. waaw doxalal. est ce que ah, la leeral. loolu na solo ñoom ñoo ko déggandoo. waaw parce que jigéen ndax jigéen joo mhm. gis tey boo ko laajee benn affaire. li koy njëkk jëkkër ma nga ca xel ma te loolu bu ñu gisee tamit koo xam ne daf koy saafara. Mhm. wax dëgg yàlla dafay am solo loolu. léegi ñu ñu jàll ci euh, quatrième question bi quatrième question bi sëriñ bi ba tey lay laaj Dan xaw na jege projet mais du projet moom wàllum société comme mm-hmm. tey Moussa du woon société bëgg société bi jëm sa kanam ndax am nga ay ay ñaan waaw macha allah tabarakallah comme mm-hmm. nit tamit bu ubbee ab barabam war naa fexe ba am loo xam ni dana ko ñoŋal mm-hmm. dana ko sàmm ba fa mu bëgg mu àgg fa mm-hmm. comme li ma leen doon wax rek comme euh, ñi nga xam ne mag ñi fi nekkoon ci li ñu nekkoon mooy lii rek liggéey ak jaamu yàlla waaw nit moom ak ngëm yàlla mbala ak jullitam mënta mat mënta mat te nekkul di liggéey mën a yor boppam ndax liñ naan ci lay mën a toujours rek dalay sañal te ka lay sañal yàlla fekk mu doon kar wala kar kala war a sañal comme képp koo xam ne yor na ab bërëb société mhm. heure bu bu bu fexee jox jokkoo ñun mhm. ci kàttanu yàlla mhm. insha allahu rabbi danañ ko jox loo xam ni bu ko fa defee moom ci boppam mu jëfandikoo barabam ba dana samp dana aaru te dana yëkkatiku ñëpp di ko seen ci kàttanu yàlla ci kàttanu yàlla léegi su lay xam naa ne comme li ñu wax rek euh, en général nee nañu sama maam dama daan dégg ñu wax benn kàddu bu am solo mu ne ma bis buñ ko buñ ko jàppee rek soreetul buñ ko jàppee mhm. buñ ba jàpp bés rek bés ba soreetul mhm. te waaye mhm. euh, dama bëgg rek euh, nga limal ma euh, am na 4 ba 5 parce que na boo xam ko daanale muy moo a solo ci diggante bi ñu wax ko ak incha allah rabbi yeneen yi daañ ci émission bi nga xam ne il faut gars yi xaar ñu mbuur ci kër sëñ bi léegi xoolal ma yan ak moo ci manqué ba ci question bu ci mujj bi nga teel ma ko moom lay tëjee waaw ñu muy liggéey waa jërëjëf di fàttali mbokk yi si taan na leen Euh, code de CI borom xalima bi. Mhm. dëkk sa Mbour jàmm gën gannaaw raay. Mhm. si école académica. Mhm. numéro téléphone 77 691 06 57. beneen 77 298 53 53. mom dafa yëngu tamit si walu yi surtout burul mu wax. dafa yëngu si walu dëndaale. dëndaale waaye nag moom loolu xam naa xëy na bu ñu comme li sa wax. ñu si jël ay léral moo xam bu positif la wala bu négatif. waaw beneen bi di walum bay rek. benen bi di walum ubbeeku. ubbeeku benen bi di walum wërsëg. ba tey beneen bi di wàllum kaaraange. Mhm. beneen bi di wàllu euh, di wàllu noot. wàllu noot noot moo xam tamit positif la wala bu négatif. loolu am na solo beneen bi tamit di wàllu jigéen ji nga xamante ne. dafa bëgg am doom te mënul am doom. mënul am doom beneen di wàllum euh, ismulaay la azam. lëmbane dëkk bi lëmbane dëkk bi. koo gis mën a yor ismulaay la azam. waaye loolu xam naa ne dañ koy lab ba ñu comme ni nga waxee bu ñu demee. waaw xëy na mu ënduñu si ay leeral. léegi nag boobu noonu bu mujjee boobu noonu. Mhm. moom laa bëggoon tëjee ñu laaj ko sëñ bi mu mu tojal ñu tuuti ci waaw ci ci deux minutes rek mm-hmm. ñu ñu doog a kii parce que boobu amal na ma solo torop sëñ si alhamdulilah mm-hmm. waaw tur yàlla moom mm-hmm. dafa doon lu am solo ci dundu doomu aadama comme li ma leen di wax comme euh, euh, tur yàlla dafa doon loo xam ne day raxas xol tey mooy li nga xam ne mooy àggali nit ci yàlla suñu borom subhanahu wa taala li alquran di wax wala zikrullahi akbar suñu borom moom moo waxal boppam ne tudd yàlla moo gën a màgg lépp. Hmm. waaye nag dafa dafa dafa dafa bokk ci hmm. ki koy def comme ah. set gi mu war a set. ak ah. sell gi mu war a sell. Ah. ak fexe bay jëflan jëf muy jëflanteel mu bañ teg ay wor ak nax. fexe bay dundee lu lew tamit loo xam ne ñàkk boppam la. loolu tamit bokk na ci sart yi. waaye doon na loo xam ne tamit ku ko am mu doon lu wér wér hmm. moom liñ naan euh, ismulaay ansam comme turu yàlla. doonul luy joxe wërsëg. waaye loolu moom. oo amul kon ismullahi al-azam tudd yàlla mhm. du joxe du joxe wërsëg mhm. waaye dana la jox nga àgg ca yàlla mhm. ba lépp lu loo xam ne suñu borom moo ko bind dina la ko tàggatal ba ñuy dox ci say yitte ci muy suba muy naaj muy taw muy guddi waaw sëriñ bi mais ismullahi al-azam pour mbokk yi seetaan bu ñu ko déggee mooy maanaam tur yàlla bi gën a màgg waaw waaw yàlla léegi nag bëggoon nañu nga indi sa élèves yu gën a waaw tur yàlla bi gën a màgg comme bismillah la ensemble buñ ko waxee ñu bëri dañuy seen xel dafay dem si centième tur yàlla hmm. bi nga xamante ne moom la ñuy di wër waaw dëgg la dëgg la hmm. comme euh, tur yàlla hmm. comme comme li nga wax bismillah al ensemble mooy tur tur suñu borom yi nga xam ne moo gën a màgg te ñu gën kaa xam ci quatre vingt noo yooyu juróom-ñeent fukk juróom-ñeent yooyu léegi nag comme Euh, ñun ku ci jokkoo ak ñun. ci hmm. kàttanu yàlla danañ la ci teg yoon woo xam ni. Hmm. boo ci jàppee moom li nga sa aajo dina faju hmm. tey sa digganteeg sa boroom danga ci am lu leer nañ lu mbir doomu aadama du dox. ndax man mii di wax ak yéen wallaahi suñu borom moo ma timm. Euh, xëy na comme li ma ko wax Moussa man loolu ma koy feeñ ci kii. waaye comme wallaahi liggéey naa tur yàlla bañ bañ bañ xay na lu paase la. bañ wan ma. aadama comme mbiri Gàmbi yooyu xewoon aadama mhm. aadama aadama gis naa ñu bindal ma ko xam ni kii mooy mooy mooy wutu président ba fa nekkoon mhm. waaye nag xëy na ñun duñ doonuñ koo xam ne dañuy génn di wax li nga xam ne moom la ñu gis suñu diggante suñu borom def naa lu nekk sax waaw pour mu génn waaw waaye mos koo mos a bañ waaw waaw mhm. tey dem nañ ñun si ci suñ tur yàlla li ñuy wérdu li ñuy sikkar mhm. dem nañ ba dégg ci kàddu suñu borom mhm. waaw dem nañ ba dégg ci kàddu suñu borom mhm. moo tax ba képp koo xam ne daal suñu bëgg na ci lu wér wér lu leer nañ li jokkoo ak allah danañ ko ci ci yoon wu leer nañ waaw tey danañ ko ci ñaanal suñu borom subhanahu wa taala insha allah insha allah euh, leer na ndax nee nañu nit ki su lay dafa am solo euh, yëkkati am na solo waaye daaneel moo ko raw nit boo ko posé question bu bu bu tartaree rek. Mm-hmm. da ngay xam ni. Mm-hmm. fa mu dem baaxul. Mhm. waaye boo posé ni tamit question mu jël temps expliqué mhm. wax la ci nag ay firnde yoo xam ni. Mhm. yow mënoo koo teggi te mënoo coo teg leneen tamit li nga war rek mooy yàlla def jàmm. su lay xam naa dama lay bàyyi nga joxe sa sa mot de waaw Moussa. ndax kii bi tëj jeex na. waaw di jaajëfal sëriñ bi si déplacement bi di ko jégalu bu baax ak. di wax ne comme ni ñu tëjee chaque jour rek di wax ne wa indakum yanfadu wa maa di lu ñu am yàlla a wax ci lu jeex dinañ jox rendez-vous beneen yoon insha allah kon kilifa gu mag yi ñu bàyyi la nga nga tëj insha allah jërëjëf di am mbégte ak contentement di leen jaajëfal te di leen wax di leen ñaanal suñu borom gën leen a yëkkati amiin amiin fépp fu mbir di fu ñu dégg mbir rek ci kawe kawe di leen ñaanal suñu borom ñu dégg leen fa xam naa aaya bi nga wax sànq maa xin dëkkum ñeent fa doon imaam la baax na. Mhm. waa ji waaw gi daa mel ni nekku comme loolu nga wax moom lay firi moom lay firi. waaw loxo nit ñi day jeex waaye loxo suñu borom moom du ma sa xaaj. asalaamaaleykum salaam wa rahmatulah wa barakatu. bi ndeysaan boo leen déggee waaye nag rawatina ki nga xam ne moom mooy sama xarit mooy sama waay bi nga xam ne saa su ne dañuy pello comme ni ko wax di toog di waxtaan ci lu bëri Souleymane wax ji rafet na ko question yi ni nga posé am na solo sëñ bi aussi ni mu tegee affaire yi am na solo lool loolu kon mbokk internet yu Sénégal TV ñii lañ leen koy defalee saa su ne si seen plateau bi nga xam ne moom mooy taxaw seetlu daañu dem fu ne daañu yegg fu ne pour wan leen rek li nga xam ne insha allah rabbi moo nekk ñu réew bu jëree nag ñu jël avion dem wan leen la nekk ci beneen réew aussi insha allah rabbi dañ koy def kon mbokk internet yi jërë ngeen jëf jóg jóg jóg jóg jóg jóg jóg jóg taxaw takku tembe taxaw seetlu